sama gars salaam jàmm kum mbedd ni ges baa ngi nuyoo leemaakum mëj wala waa dégg ko fay mi chef booy ji ji ji di der ak booy grand mi si takk mu ne fu ne maa ngi leen di bégg bu baax a baax di leen ziar vous êtes dans votre émission préférée Galsen sama gain sur Equivox TV tey nag euh, prophète la seet ci prophète from big town maa ngi nii big town si kafe gi ñëw fa yéene waxtaan ak moom euh, ci démb euh, début carrière am ba fi mu toll jamono bii si la ñuy fas waxtaanal ak lu muy waajal gëj nañ ko dégg gëj nañ ko gis donte temps yi mi ngi def ay single di génnee loolu yëpp dinañ si ñëw ci kanam tuuti mais prophète bi ñu xamoon démb ak prophète bu ñu xam tey euh, dafa wuute dina ñëw ci loolu lu tax mu wuute prophète bi ñu xamoon démb ak prophète bu ñu xamoon tey lan mooy changement bi incha allah dina si ñëw si kanam tuuti mais avant tout dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci biir waxtaan bi pro. salaamaaleykum Djily Der maa ngi lay nuyu. di nuyu ñëpp ñuy seetaan eh, ki eh, eh, kii Equivox TV mm-hmm. di bëggee waa Grand Dakar waa Sénégal xam nga ak bépp fan si Prophète ak foo munti nekk maa ngi lay bëggee. Mm-hmm. Prophète toog na lu yàgg gisatul la woon Prophète su lu mu nekkoon temps yëpp. <laughs> ah maa maa si jàmm maa yoon si jàmm baax a baax xam nga bon comme comme nu ñu faral di expli di expliquer rek mm-hmm. xam nga laay des fois bon des fois day haut mhm. des fois day baax des fois day weex des fois mu ñuul mhm. xam nga da ngay day nice tey ba ba ba ba ba live bi signe la mhm. après mu mujj xam nga mu mujj ñëpp ay bañum quoi affaire bi loolu euh, loolu kese la quoi euh, na tolloon naa benn nekkoon naa si benn lancé boo xamante ni bon ëmp ëmp loolu kenn koo xamante ni yaa ngi déglu hip hop yaa ngi suivre rab mm-hmm. xam nga après ñu jeg saa yi gisatuñu prophète di déggatuñu prophète si dara. Mm-hmm. xam bon xawoon naa am ay tuuti tolof tolof nag. si mm-hmm. sama carrière. Euh, benn benn un an deux ans trois ans yoo xamante ni bon euh, dund naa ko. Euh, li ma daan génn sama gaale sax bu bëreetul woon. parce que bon xawoon naa si xawoon naa si tawat daal xaw xawoon naa si tawat. waaw mais maa ngi sant yàlla bu baax quoi jamono yi toll si biir tawat boobu noonu sax si laay dugg loolu bokkoon na ci lu taxoon déggatul woon prophète hmm. tawat boobu lan la woon ñii ñi ngi naan dañ ko liggéeyoon ñii naan non du liggéey prophète moo topp bànneexu bakkanam ba li koy dal dal la lan la ci woon bon des fois xam nga bon xam ñoom lu ñuy gis rek la ñuy wax mm-hmm. mooy li nga xamante ni dafa saayir mm-hmm. mais am na loo xamante ni bon baatin bi dëgg dëgg pour nga gis ko il faut que nga jege nit ki xam nga pour xam lan la quoi bon te des fois nit ki dina ko gis nii rek mm-hmm. nga gis benn gaay boo xam dafa jéggi saay rek mu nekkoon ku cool ku nice nga jéggi saay gis ko mu dof xam nga nga yaakaar ni xam nga lan moom moo ko teg boppam wala demee noonu fekk fekkatoo boo ko jegewul dëgg-dëgg bu boo jëlul ay ay ay tànk boo solul ay dàll jiili mënoo xam lu jiili di dox. dëgg la waa fa fa loolu la ñuy expliquer quoi. Mm-hmm. xam nga bon mooy mooy daal tawat boobu tawat boobu la woon boo xamante ni man je pense que tawat kenn kenn du ko teg sa bopp. dëgg la xam nga soit que sunu borom moo la koy teg. wala soit que doomu aadama jóg. teg la dara après suñu borom ne waaw mu dal après bon tamit nga gëm si yàlla rek quoi. kon tawat jàpp ne doomu aadama moo la ko tegoon. Euh, bon waaw loolu la loolu lay wax ah, loolu lay parce que xam nga bon da dañoo nekk si benn milieu. Mhm. si benn milieu boo wax boo xamante ni bon. Euh, boo si nekkee xale. Mhm. boo si nekkee xale teel am tur. Mhm. je pense yow da ngay affaire bi foofu rek la yem. waaw man loolu xawoon na ma dal si sama carrière quoi. Mhm. loolu de euh, man je croyais que bon game si si mhm. euh, talent kase la yem quoi. Mhm. mooy ni que da ngay da ngay am sam xel. xam nga da dagay bind. da ngay da ngay tëju da ngay bind say say son yu nice da ngay dem enregistré. génn génn affaire yi mu mu nekk ay it. da ngay yaakaar ne nga bi foofu rek la yem quoi. mais am na lu gars di faral di wax mooy talent plus. xam nga da am talent mais da ngay am weeruwaay mhm. boo amu weeruwaay nag da ngay mm-hmm. neex a bëmaax. man jot naa si xam dara quoi. Mm-hmm. xam nga bon peut-être ni sama feebar aw ma si woon wa aw ma woon weeruwaay. wa la avant avant may tawat. Mm-hmm. ba mu dal ma. ba ma dalee peut-être ni que mën na lax di xabtal si loo xamante ni yow. Euh, du sa coobare. waaw mooy mooy lu gars yi di di mooy lu gars yi tàmm di li ngay expliqué nii. bu la neexee mun nga jaar si di saaga n'importe qui man man non non ko buñ buñ jotee dama dama dama lay saaga. comprendre ah. bu lay classe mais jamono bi nga potee nga gënoon lay classe bu ma lay classe non la c'est hip hop hip hop dafa am lépp. Mm-hmm. comprendre hip hop hip hop moom affaire am mbedd la hip hop am na lépp. Mm-hmm. am na love. Mm-hmm. hip hop am na euh, shout shout out. hip hop am na nga nuyu ma ma xamal ni que sama bro am na ni que sama ennemi nga. dama dama lay saaga. xam nga parce que lépp mbedd la mbedd am na lépp mhm. am na amour am na mhm. loo am na sentiment mhm. am na reyante am na saaga ndey am am na lépp loolu il faut que ñu nang ko dëgg la hmm, buñ ko gisee réewoon de quoi mais bi nga doon saaga artistes yi boobu jamono lan la woon boobu yaa ngi saaga non bëri na ay yi nga da daan yéeg concert di dagg saaga di teg comme kan fekkee naa boo xamante ni boobu su ma jumul duuta sekk la ma bless Senghor boobu yéeg nga presque avant ngay dagal nga benn artiste boo xam ne sa gaan woon démb xam nga après affaire bi yéemoon ñu bëri. saa saa saa xam nga man dama uute ak ñoom man dama différent ak ñoom si côté yu bëri. Mhm. mooy xam nga lan la ki ngay wax saa man dama bëgg bu ñuy wax ñu jaar si digg bi. waaw <laughs> waaw bi nga saa garçon <laughs> voilà ko comprendre saa <laughs> ñoom. waaw ñoom dañoo nekk ay naafeq. comprendre non waxuma non du gëwoon waxuma gànnaay de dama ne ñoom. gaso ñoom waaw. ñoom dañoo nekk ay fek ñoom dañuy nekk si suuf. Mhm. de la saaga di def lu ñuy def man nag soo saaga si suuf. man damay saaga si kaw waaw ba ñëpp dégg waaw man aw ma ay demi mesure si dara bu fekkee ni que loolu mooy tax nga bëgg ma wala nga bañ ma hmm. dim ma si bëgg dim ma si bañ hmm. calculé wu ma quoi xam nga pour def loolu parce que man hmm. waaw man ni ne nitu dëgg laa quoi man nii def dëgg la comprendre ay détails yu bëri comme li nga doon wax sànq moo ma ne la bu ñuy waxtaan nañ jaar si digg bi ay xam-xam ay <laughs> prophète dafa doon topp bànneexu bakkanam wala ay demee noonu moo tax sànq ma ne dina la jekku ba nga xamante ni mën na la xabtal si loo xamante ni yow sa famille. Mhm. kenn mësu si def. Mhm. say say say képp sa ay maam. ba ni muy wàccee si yow. ba kenn mësu ko si def. Mhm. man jamono ya may topp di toog si mbedd bi fii si fii Grand Dakar di dem si concert wala demee di mandi. di ama di naan sàngara wala xam nga di téye sama sama butéel waaye xam nga di def ma man maa tey. damay noonu. loolu di woon sama coobare man doomu jullit laa. mais prophète comprendre non xaaral même rek man doomu julli laa man Kéba Seydi laa tudd ñun ay soose loolu xam nga soose xam nga soose la nga xamee uh-huh. jaamu yàlla ak ak alxuraan di diine rek boo demee bay expliquer li nga xamante ni jàlloon na démb waaw xam nga tey non c'est parce que yaa si man tey boo si waxul woon man du ma si wax déedéet li nga xamante ni jéey daan nga ko def démb nga toog tey ko expliquer kon tey li nga doon def démb prophète yaa tey quoi non no xam-xam non non xam-xam déggoo li ma expliqué doo fi laaj comprendre dama ne pour prof am na ñu doon naan pro xam nga dafa toppoon bànneexu bakkanam noonu noonu man la noono non des fois mhm. la jekku ba nga xamante ni mhm. dinañ la def loo euh, looloo xamante ni du yow comprendre aw ma benn kersa rek mhm. aw ma benn kersa wala aw ma benn arrière pensée wala ragaluma pour ne ni que Euh, man man dama doon naan alcool. Mhm. tu comprends nga parce que mhm. la moo tax. Mhm. Euh, am na loo xamante ni xaw na ma ko yàqal sama carrière. comprends dama koy wax. pour booy bi nga xamante ne tey. mii mi ngi rab yaakaar lool moo baax. lool mun na ko yàqal carrière am moom comprends nga. foofu laa expliqué mais lool noonu noonu noonu noonu. du woon prophète. tey boo duggoon sama gaala ba bu nu paree dinañ dugg sama sama gaala mais mi ni nii. sama gaala si biir dafa am jàq. man man doomu jullit la fa nga jógee nii sax da nga julli ñëw ñu def. émission bi xam nga. léegi léegi yow pour ñu génn point point maraboutage boobu noonu mais ki la ko def yow xam nga ko wala ba tey jii. non man yooyu doot mu si wax man li li soosay di wax rek mi yaa banta a banta. dund naa ko ki nga ko jiiñ moom ki ko jiiñoon ki nga mi ngi fi nekk si yoonam di tracé di dem. Mm, mm. profet tey mi ngi nii Grand Dakar. Mm, te pourtant kooku gaanam la woon démb ku ko jege la woon. muy Ngaaka Blindé. lu tax nga jiiñ ko Ngaaka prophète nag yab nga ngaa ko. du question de jiin. non non jiiñu ko man xam nga du ma tëb tëb rek du ma tëb tëb rek loo xam di di la nee ji li yaa ma yaa ma def li parce accusation boobu dafa garaaw. non mais comprendre nga accusation boobu dafa garaaw. bisa ni ngay demee. Mhm. ni ni ngay demee. Mhm. ama ba ba après def li def li ngay def. Mhm. ñu euh, peut-être mën nañ dal peut-être mën nañ bañ dal xam nga bu fekkee dal nañu. ñun tamit noonu la ñuy demee. dëgg ku nekk am nga cosaan. dëgg la noonu la lay deewee. da nga dem ñu la ni la diw la ko def xam nga noonu la lay bu fekkee nag ni que nag da ngaa mel ni man ëppal. Mhm. da ngay ñëw jaas digg bi ne jiili yaa am nangam sangam du ngeen a fii. la la preuve mooy ma maman moom wax nañ si. Mhm. ngaa xam leen de woo na ma. Mhm. téléphone moom lool du ko mos a weddi. baxaw moom njëkk a woo nee ma ngaa xam bu la wooyee di ko jël maa woon fii taxaw barki Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke. dëgg la mu woo la nga jël. comprendre nga bëgguma sax wax gaan barki yàlla xam nga su ma nu bàyyi mu sedd man dama koy ñaanal xam nga amul ragal dama koy ñaanal dama koy ñaanal non bëgg ma si wax gaan sama trois ans dama si dund lu metti xam nga dégg naa fas ki kii façon wax bu ne dëgg la xam nga di def maa tey mhm. gaan man gaan bu cool la mhm. som fréquenté di nga xam gaan bu cool ngay waxal comprends nga di def affaire yoo xam di tooñ sax ñoo xamante ni waruma leen tooñ di di ama di di daal di ama di def loo xamante man sama maire bugg ko mm. te man musuma bëgg loolu di def loo xamante ni maire bi maire bi àndu si parce que à chaque man ñaanam dama koy sàkku mm. man noonu laa musa mel waaw ah, yow moom yow sa relation ak sa maire sama maire loolu loolu xam xam ñëpp xam nañ ko man damay mm. amul dara loo xamante euh, man def naa ko def naa ko nee neexul sama maire da duma ko bàyyi léegi léegi léegi léegi dama tox woon dama dëkkoon Sacré Cœur quoi. xam nga ma luwee fa appartement. dëkk fa une semaine une semaine laa fa dëkk fay naa ko trois mois avance. dëkk fa même pas une semaine. sama mbooy yee fa dëkk maire ba ma nee ñëwoon ñibbisi si kër gi lu mu xat xat xat barki Cheikh Awa Balla Mbacke dama ñibbisi ñëw dëkk. dëgg la comprends nga. Mhm. te bëggoon naa génn bëggoon naa sama esprit gën a ouvert bëggoon parce que bëggoon naa ñëwaat si game bi ak force. waaw mhm. moom peut être gisee ko noonu comprendre li li li ma wax a gënal. Mhm. ma ñëw dëkk. jege waat comprends nee na ma aussi su ma soñoon doo waxati si waxu Ngaka Blindé. ndax sama sa sama doom ga ngaaxa tamit sama doom la fii ngeen doon nekk si si biir kër gi. xam naa ne moom tey nga si mujjee wax xam nga man doon doon ma sax wax xam nga xam nga fii ngeen doon nekk si si ni mu tudd si biir kër gi. Mhm. damay noonu aussi boo musaan dem géejawaay tamit yaayam yaayam dalay yaatal. Mhm. xam nga damay noonu kon donk bon su ma sañoon daal booy wax si moom nga wax si lu rafet kon donc lu rafet rek laa mën a wax si moom sama raq la mi ngi si yoonam yàlla na ko yàlla jàppale euh, gis nañu booy yi nga xamante ne tey fël nañu ba téye gembe jamono bi ku ci mel ni Dip nga ak Blindé yaal la njëkk a fël liñ téye nii yaa ko njëkk a bañ na ko ba nga ak Blindé sax yaa ko doon présenté yaa ko doon forcé ba yenn gars yi booy bu mu ñuy forcé nii mooy kan ñu jékki-jékki saa gis booy yooyu tey bàyyi nañ fi prophète mm. dëgg la amoon nga si diggante bi ay gàllankoor yoo xamante ni moo la dab. Mm-hmm. yooyu yëpp juge nañ ci instant bi yaa ngi ci yaa ngi commencé waat beneen carrière. Mm-hmm. pour ñëw jéem a dabu booy yooyu. Mm-hmm. est que booy yooyu pare nañ pour tàllal la loxo ñoomit it delloo la njukkal eh, ci li leen defal pour teg la loxo ñoom it ñoom it ñu teg la loxo pour nga yegg ci quoi ndax xam naa ne fi relation ak Dip day naaj sa relation ngaaka dafa war a naaj tamit. waaw waaw xam nga man moom li ma gën a jiital si sama si sama àdduna mooy liggéey avant tout mm-hmm. waaw man na ma liggéey ba yàlla may ma tur mm-hmm. yàlla may ma am fa am fu ma tegoon mm-hmm. ba may xam nga gestu sax di may di may ba booy loxo pour que ñu ñëw man je pense que foofu laa gën a viser quoi pour pour liggéeyaat ba ga xamante ni dinaa dinaa dinaa dépasser sax booy fu mu toll nii quoi prophète bu ñu waxee dañuy naan prophète lyriciste la dafa mën bind xam loolu ñëpp dañ koy wax prophète booy kenn dàq ko ci bind te bu booy yow ak ñoom yéen a bokk génération da leen njëkk a fël rek xëy na mais bokk génération bind boobu noonu ci kanga nga ko kii kan nga doon jege ba loolu nekk ci yow. Gala Iba mi ngi nii ngay jaaxaloo Gala Iba bu bu kii bu Rapadio. xam nga ñun ñaar ñoo jaaxaloo kër quoi sama suñ parenteeru Sall ak parenteeru yaayam. ñoo jaaxaloo. Mm-hmm. man dama nekkoon booy xam nga doon teel a fréquenté bi. Mm-hmm. xam nga grand yu bëri aussi doon fi ñëw quoi. xam nga domaine domaine noonu grand yu bëri rap rappeur bu bu la mos a jaaxal sa Sénégal. ñëw na fii si rap Adio bi te man dama nekkoon dama nekkoon ku soboon. ba may def kii primaire. di jàngee Saint-Pierre. dama doon waaj teg sama saak suñu kër rek rek génn ñoom suñu buntu kër la noonu ataaya quoi rek rek génn ñëw toog si ñoom xam nga demee noonu affaire boobu nag day màgg ak ñoom day màgg ak yow day màgg ak yow ma ma commencé nag après dugg si rap damay noonu di di fréquenter Iba moom lu mu lay ñëkk a jàngal si rap lu mu lay njëkk a lu muy njëkk a def si yow mooy écriture da da rapage yooyu ñu leen xam da nga leen xamee écriture quoi peut-être ni que après loolu moo nekk si si man ah, xam nga si endroit bu ma yeroo mm. ba pare Grand Dakar dafa nekk benn quartier populaire boo xamante ni ni que da ngay gis lu ne dëgg la da ngay lu ne léegi waaw waaw chaque jour mu mën nga si bind album chaque jour chaque jour parce que da ngay ne boo fi toogee tuuti rek di nga gis xam nga loo ni mën nga si bind xam nga bu génnee it lay doon soit que damay ànd ak yow leen nii nii ma xam ki ma xëy ñëw sa ma mu leer ma ni ni ko fii nii xam nga tey ci taajoowu fi hmm. xam nga walay demee noonu ngay gis ay yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen ngay gis ay booy yuy jàngi benn booy yor mburoog soos hmm. nga nga gis yeneen booy yëpp topp ko ay ngeen nekk ay six benn booy daw yooyu yooyu yëpp xam nga da nga ay ba ma doon bind ay sunu démb ma metti woon ay man ak ay ñoom la day nekk loo xam ne c'est pas jaabul ko parce que dama dundu si si environnement boobu mm. boobu quoi environnement boobu mm. noonu ci nga dund da lay bind loo grand bi voyage Iba mm. dénkoon la Gaston wala dénkul woon. non non boobu ñoom ñaar amoon amuñu danoo amoon sax. Eh, danoo amoon paf quoi waaw waaw. bu muy dem bàyyiwu wala si loxo kenn. non non non non boobu man maa fi nekkoon kase man Grand Dakar. après dañu gis ba mu demee yow da nga jege Gaston. waaw waaw xam nga moom ba mu demee boobu. Def Style mi ngi fi woon moom da moom dafa tegoon benn groupe bu tuddoon Def Style. Def Style man man maa si nekkoon ak Omzo dina Rahman. Mhm. ak euh, Kim benn ngaa bu noon Kim. Barthélemy ak Iba bu Rapadio ak Falso bu 23-3. Mhm. ak Almami bu 23-3. Mhm. ak Karim Xurum Xaq. Mhm. waa ñun ñoo si nekkoon léegi après ba ñu demee ñoom ñëpp. bu kii ba Iba demee après group bi nag dafa dafa tas. xam nga Karim toog koñom bopp. kii Omzo ànd ak Iba dem Angleterre. xam nga gars yi daal c'est pas moment si gënoon doon booy est-ce xaw ay vingt et xaw ma yu xam nga yu demee noonu quoi. léegi après bon man instant boobu deretu hip hop bi duggoon na ma quoi mm-hmm. carrément am woon fii benn rappeur bu ma fréquenté mm-hmm. fii nii benn rappeur ne ne nekko fi woon booy ñoom lu ñu gëm bu ñu xëyee day day football day entraîné joueur joueur lay àndal mbër mbër lay àndal donc donc ma am woon benn rappeur bu ma àndal comprendre mm-hmm. dama doon dem si ay saay fa ay caaro yi man kase di dem di ñëw ay ay parcelle di dem di ñëw demee noonu ba après benn benn grand bu def parcelle ni may présenté Gaston def dara après may dem fa fréquenté xam nga di sentir ni que maa ngi dund hip hop bi nga xamante ni. loolu laa bëggoon quoi loolu laa doon mhm. après ba dina nekk def dara ak ak Gaston xam nga damay noonu ak rescapé damay ak gars yi ñoom moo gën sama xam nga ay ay ñoom caat ñoom kilifa ñoom ñëpp. Hmm. xam nga ñu ñuy fréquenté may gis sama bopp foofu saa yu ma xëyee dama damay dem saa yu ma xëyee damay dem daf ma doon neex même su ma koy dox sax. xam nga damay noonu après looloo def sama fréquentation ak gas ba nu ñuy partagé ay affaire yu bëri moom tamit mu nekk koo xamante ni ku jàpp sama carrière la. Hmm. tey tey tey. nekk na koo xamante ni il a mis du goudron sur ma route. xam na bu baax si xam si yoon bi daal gis yow day jàpp si sa carrière après da ngay tourner yàq ko lu mel ni xeme. comme kan non sam tàng lu mel ni xeme. non non non non seulement gis nga am na ay sa sa ça dépend si ni ñuy jotee. Hmm. te te tey rek ka ba joobatuñu mais da nga mës a dégg res wax si man lu ñaaw da nga mës a dégg man ma res loolu hip hop yëpp xam nañ ko yéen ñaar ay hmm. seex ngeen ay gaayan ngeen xam nga dañ hmm. hmm. moo tax sax gars faral di wax mais ñeneen ñi ngay sànni xeer même ak keneen alien après nga dal ba musuma fréquenté man man pro man musuma fréquenté alien yow mus nga joteeg waa Alien. mus naa non mus naa joteeg non non man musuma joteeg waa Alien rescapé moo jotaloon ak waa waa kii ci waa Alien. dan dan comprendre ba rescapé moo jotaloon ak Alien. man instant maa ngi rescapé ñi ngi ànd. Mm-hmm. yow maa yow di leen ànd. ah kii jote ak man yow. Euh, léegi yow nga ñëw sàngaafu xeex bi quoi. non du sàngaafu dama see du ko xamal ne sa sama frère la ki kenn du ko laal te xam naa ne bu bu doon man tamit. noonu lay euh, res noonu lay taxawee. mais après da nga fës si coole pro. waaw daam ñu mel noonu. mais pro yow da nga xaw a weex donc quoi prophète jàppal fii prophète lii pro léegi xanaa loolu moom. mooy loolu amoon na loolu loolu loolu loolu amoon na xam ay ay jamono te boo boo seetloo man man si game bi lu ñuy naan pro daa bëri coow pro daa bëri yëpp yëpp yëpp man mosuma am problème ak rappeur mu jógee mu ki mu jógee si yow. Hmm. problème bi juge si yow ñëw si man wala problème bi jógee si man ñëw ñëw si yow. musul am lu leer laa la wax. ba may am problème ak gars yëpp yëpp yëpp soit ak Gaston moom moom moom moo amoon kii problème ak ak gars yi gars gars yëpp yaboon ko ku tourné da ngay saaga gas ku tourné da ngay saaga gas mais damay siisu. Hmm. xam nga dama damay gis sama bopp xol day sot. waaw parce que bu amee xaalisam dina ma jox bu demee ka kaaw ba bu jëndee da daal bu rafet da xam nga dina ma jëndal daal hmm. ñoo doon fanaan benn kaw lal hmm. xam nga ñoo doon partage lépp bu daan voyage ñoo doon ànd xam nga ñoo doon partagé benn micro benn kaw seen kon kooku bu amee problème te duggoo si à 100 pour cent nga nekk naa fekk. ragaluma nag gars yi naan ay pro daa bëri coow moom moo leen tey samay samay coow yëpp si loolu kase la woon. mais mais musuma am coow fii nii si rab si si rap Sénégal coow coow lu jógee si moom si si si nit ki di ñëw si pro wala mu jógee si pro di ñëw si yow. dëgg la mm. léegi dañuy dañuy dugg ci sa ci sa album bi nga mujjee génnee mu nekk album bu nice pro. Euh, am ci benn sound boo xamante ni peut-être sénégalais yi bëgg nañ ko trop mooy bi nga def ak Karbala. Euh, ñaari yoon. Karbala loolu ñëw si album bi. loolu noonu. sa album bi. waaw waaw waaw lu mënul. album bu naay san lu mënul ñàkk waaw mais après toppoo communication mm, bi. Mm, boobu mm. nag mun nañ la comprendre ndax boobu feebar bi. sonal na ko commencé woon na dugg xam nga instant boobu instant boo xoolee album bi amu amuloon sax concert dédicace. Mm-hmm. te waroon na am ba kii Sorano. Mhm. xam nga jëloon nañ Sorano pour teg concert dédicace bi mais après concert bi sax mujj ma ko mujj ma ko joué quoi. Mhm. parce que bon instant sonnoon naa trop quoi xam nga. bon euh, lu mënul ñàkk waa teg jëmp ñoo ko génnee woon. Mhm. xam nga grand Assane maa ngi koy nuyu bu baax a baax. xam nga mu def si xaalis bu bëri nag. Mhm. xam vraiment yaakoon na si xaalis bu bëri bëri bëri. Mhm. mais bon xam nga comme bu bëggoon na aussi album bi def yoonam. man tamit pareil bëggoon naa album bi def yoonam. album bu riche la woon si bind. si rap si si si si beat yi et tout demee noonu si mix si mastering. mais ba ma bëggoon nañ daal mu mu def yoonam mais bon comme lu ñuy wax rek jàmbe pexeem yàlla ak dogalam. xam nga boo xoolee si biir album bi dama siy jël son boobu. ñu mm. waxtaanee ko ñaari yoon. Mm. yow Karbala bi. waaw nga bind foofu noonu loolu si waa réel la wala. li ngeen di bon. li ngay gis la si temps bi ah li ngay la si temps parce que sànq maa la koy expliqué ñun doon doon dëkk si benn quartier populaire boo xam da ngay gis lépp. Mm-hmm. ko comprendre chaque jour am na loo war a bind man looloo tax ma nekk artiste boo xam dama xaw a thématique mm-hmm. ko comprendre nga ñaari yoon fii fii tey da ngay gis am na ay boy yoo xamante ni euh, euh, euh, day xëy nekk caga pourtant sànq wa waxoon naa si njëlbeen balaa nga xam diw lu muy dox solal ay dàllam nga dox nga. <laughs> booba jafe xamoon naa di ko ci dugal. <laughs> <coughs> gel bi moom dafa nekkoon benn gel bu baax benn benn gel jigéen la woon doonoon ku baax rafetoon loolu kaar bëri woon ree te munoon jàng xalam neewul si far bu demul jàng mi ngi si kër gi liggéey yëpp lay daan moo daan fóot raxas di paase musuñu fay min daan kenn musul dégg mu jàmmat dara boo koy kenn musul dégg mu mu jàmmat dara boo koy xaw ma lan boo koy seetlu day bég naa fàtte teg si bi quoi kenn musul dégg mu jàmmat dara xaw ma boo koy seetlu sa soxna ngay yëg koñ bi ñëpp ñee ko koñ bi ñëpp ràññee ko ni baax na yaru na bëri na kersa ku nekk di réevatee ko mm. rakam amoon cancer xol dem ba bu mënu du woon a jóg yaayam di jóg ak daanu dem ba mënu woon a toog baayam amul woon doole dafa taroon si moom te ñoom amuñu doole buñ fajee dafa taroon si ñoom mhm. moom dem na sax ba dagg jàngam dem uti ji xëy góor yi bëri dañ ko ñaan si woon talu woon say li nee si xelam mooy génn si ba tekke ji moom lu nee si xolam mooy fexe ba faj rakk ji ndeysaan loolu kase la woon léegi fexe ba faj rakk jooju am canceru xol tax na mu dagg jàngam tax na mhm. ba toll na si say sax demul say dem di cagatu ji pour faj rakk dafa mujjee nag di dem di cagatu pour pour pour pour faj rakk ji. ndeysaan kooku dafa jógee nekkoon ku baax. Mm. après mu mu mu mu kii mu mujjee nekk ku bon. comprendre nga mais du coobareem. mais saan boobu ñu ngi xaar nga vidéo ko. Karbala incha allah Karbala def sens contraire bi. Mm-hmm. expliqué benn gel boo xamante ne dafa bonoon. Mm-hmm. après gel bi mujj baax. waaw mooy ni day expliqué ni ni que rek dans la vie bul teel a jugé. Mm-hmm. dans la vie ni ni ama ni xam nga bul ka gis mu mel mu mel nii rek nga teel a jugé xam nga ne ne ni kii nii la mel wala kii lii wala wala kii laa loolu rek lañ si lañ si expliqué parce que bul bul xam lam la moo tax mu mel noonu wala bul xam la moo tax mu def loolu. prophète lu nu dese si temps bëriwul mais gis nañ temps yi nga génnee benn single euh, muy muy Kéba Seydi ak ñaari single sax Kéba Seydi bi moom am na vidéo Dinding Keba bi boobu bandi bandi eh. bandi yey foo waaw bandi yey foo mooy bi nga def ak Moussa. MC eh, eh, Moussa from PA waaw temps yi moom yaa ngi ñëwaat. temps yi foo nekk. dama koy jëlaat. temps yi temps yi ban ci ban label nga nekk. temps yi maa ngi jox ay ay gaa nag yoo xamante ni bon bëgguñu ñu xam leen quoi. Mm-hmm. xam nga nee nañu rek xam nga su ma wax si ñoom moom xam nga ma nee na les hommes de l'ombre quoi. les hommes de l'ombre waaw mais am na ñu may joobal. yaa ngi waaj album. am na bien sûr. bien sûr non man pare naa album bu yàgg pare naa album am naa album buy nelaw studio. léegi pare naa bu yàgg sa xanaa soit instant bi danoo nekkaat di di album bi dafa pare woon depuis ans si ginnaaw quoi xam nga pare woon ay ay trois ans mais instant bi da nga koy defaraat mu gën a rafraîchiraat xam nga pour mu gën a ñëw mais bu dee album moom xam nga pare woon nañ ko bu yàgg. léegi lu nu mën a daal ñu ngi maa ngi jéem def le tout pour a defaraat sama promo. Hmm. gën a am na parce que mos na mos la ko wax am na ay boy yoo xamante ni démb ba profet di di di cartonné ay boy lañu woon ay 10 ans lañu amoon ay 12 ans. Hmm. tey boy yooyu ñoom ñoo màgg. Hmm. di déglu xam ay ngaaka. xam ay dip xam ay. Eh, eh, eh, samba non non non non sama public léegi gars yi gars yooyu ñoom déglu rek lay def ñoom ñi toog si bureau yi. xam nga léegi ñooy ay mag lañu quoi xam nga <laughs> mais doon boy dañ say bokk. booy dañ say boobu il faut nga fexe tout ba booy nga xamante ni dañuy déglu kii di déglu kii déglu kii yow yow nga bokk foofu noonu. Mm-hmm. mooy booy nga xamante ni tey tey tey tey tey dag la ni naan prophète ñu ne la kam mooy kooku. Mm-hmm. booy te pourtant booy ñi ngi déglu rap. comprendre mm-hmm. il faut nga récupérer loolu instant loolu la nekk di def quoi mooy jéem a def promo boobu nga xamante ni ni que dinañ jéem a nangu booy yi nga xamante ni yëpp ñuy dem fa Mm. ok kon 2021 bi ñu xaar loolu quoi. waaw euh, si phase promo comeback instant bi laa nekk quoi bu ma demee nag ba ba kii ba xam ba sentir sama bopp si loolu après annoncé album quoi. jaajëf projet incha allah jaajëf bandi waaw man tamit maa lay bëggee jili yow sama waay ga non aada sama père la aada <laughs> père la <laughs> aada aada aada magum la aada seega nit ñi ñoo boole rek mais aada xam sama grand bu baax la quoi aada. Euh, laay Kanibal xam nga moom tamit jantal jantal grand la moom lu naay sax lay dox sama diggante ak aada quoi. Mhm. xam nga aada maa ngi koy bëggee. bu ba wax ban la bàyyi xam nga yee man. dooy tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy comme daf rek xam nga bëggee Grand Dakar cat ba cat. xam nga bëggee pro yi ku si nekk foo wax pro mi ngi mi si yoon bi. Mhm. di bëggee euh, nu mu tudd waa mbedd bi du mbalit. Mhm. waaw gars yi tamit xam nga fa fa nga bëggee leen waa waa mbedd bi du mbalit waaw benn grand moom moo ko jiite bu tudd Galamu Galamu Thiam Diallo l'homme du bus. ñu ngi koy bëggee xam nga fi fi ñu toog nag mooy keppaaru mag. waaw man fi chaque chaque suba teel su ma yeewoo fi laay naanee café 17h tamit su ma jullee takusaan ba pare fi la fi laay naanee waaw di di woo artistes yëpp nag ñu lay jox zel xam nga boo jëndee café dañ lay jox zel waaw nga diw xam nga la masque nga takk yéen man maa ngi bëggee gars yëpp ah di bëggee gars yëpp encore yéen man wala euh, la woon from big town Equivox TV jiri der gaal sama game jaajëf sama gars yi ba beneen yoon tey prophète si woon ñëw big town fekk fi gars yi keppaaru mag si kafe gi fas yéene ñu waxtaan ak moom ci lu mu nekk jamono bi nee na 2021 dafa ñëw pour récupérer si li nga xamante ni moom la ñàkkoon moom Prophète ñoo ko déggandoo jaajëf sama gars yi ba beneen yoon bëgg naa leen ñëpp jaajëf